te seetaan ko dangay ngay denc Macky Sall ak lu bokk ci moom bu dee gor nga te moom sa bopp laa parce que réew mi nag gor ñëpp jënd nañ leen tey te xam nga yéen wal fajri li tax yéen ngeen am importance yéen dangeen a bokk ci nit ñi ci nit ñi ci nit ñi jàpp ni réew mi maanaam espoir da ngeen da ngeen a bokk ci ñi ci des tey man xam nga man mën naa wax sama xalaat tey bari na média yoo xam jaay nañ seen bopp bu yàgg. loolu mooy dëgg. ma daaneel c'est important. waaw daaneel parce que il te buleen bokk ci ñooñu parce que yéen ki ci kër gi dafa am lu mu lu mu jaay réew mi mooy ndor diñute wane ni nit du jaay boppam te gis nga lii ay scénario la scénario yoo xam ne jëmee fenn réew mi lu dul réew mi réew mi moo ciy perte d'accord yaa ngi dégg Adji Sarr bu dee am na ay mbokk mm-hmm. na ko ay mbokkam récupéré mm-hmm. parce que dañ ko jàpp otage papaam la àndal de yaa ngi dégg papaam la àndal papaam bu bokkee ci complot bi nag s'il vous plaît il faut moom dem ci ah. imaam imaam papaam imaam bu fekkee papaam dafa bokk ci complot bi charia da koy caw imaam Dramé lii mooy dëgg imaam Dramé ah. waaw d'accord mën nga maa may ma poser question d'accord maam euh, est-ce que mënoon ci defal lecture bu vraiment boo xam ne duta lecture bu <laughs> lecture bu gën a frappe pour ñu mën a comprendre qu'est-ce qui s'est ak d'ici prochain jours yi est-ce que mën gis mu am bi ndaxte am na ñoo yuru mandat ci suuf ne on peut s'attendre sax ci ay arrestation bon mu am du côté de Adji Ndeye Khady bien waaw euh, tout à fait bëggoon naa euh, euh, wax ñaari baat rek ci affaire Cheikh Omar Diagne bi mhm. mais puisque posé nga ma question xam naa dama si mujjee wala ma ñëw ci beneen yoon bien sûr euh, par rapport ak li xew nii am na jàngat yu bëri yu ñu si mën a def parce que tout à l'heure bi tey dafa wax ne dafa wax lu am solo mhm. maanaam mooy mënoon nañ ko def si sutura mhm. Euh, dama jàpp ne Adji Sarr mënoon na ñëw tey bu dugg bureau euh, juge bi te kenn du ko yëg mm-hmm. Mm-hmm. parce que bii nekkul première face à face premier face à face am ak un juge d'instruction am na keneen ku fi njëkkoon nekk déglu woon na ko te ba mu koy déglu yaakaar naa ne show bi am nii amu ci woon entre temps dafa am yëf yu bees yu génn mooy audio fuité. Euh, non li bees sax nekkul ci ojo fuité yi mu ngi déparé ci interview Adji Sarr ak yenn euh, organe de presse yi. Mhm. yaakaar naa ne foofu la stratégie commencé euh, ñu nekk ci dynamique de communication dama jàpp ne si loolu la ñu continuer nii tey Adji Sarr xaw ma kimono la sol xaw ma <laughs> génn di jouer à la star. Mhm. loolu. non mais robe bi rafet na. boobu imaam imaam bi rafet na de. waaw mun na na waaye rafet bi rafet na quand même. Ah, voilà ah. <laughs> waaw mun na ra na rafet mun na ger mais dama ne niroo na ak pyjama ak kimono. Hmm. Euh, euh, euh, loolu amul solo li li li ma bëgg a wax mooy. Hmm. mise en scène bi daf ñuy jox une idée de ce ñoom lu ñuy préparer. Hmm. mise en scène bi dañuy jox idée. ci ñoom kaw Adji Sarr lan la ñu bëgg parce que tey xam nga imam sànq doon na expliquer ci affaire euh, euh, charia ngeen ne ko du ñu juger fii charia euh, loi la teg mais même ci loi boobu li imam wax dara du ko dindi parce que viol loi wu Sénégal ñu mu koy attee boo ci boo ñëwee ne dañu laa sàkku ci lu dul sa coobare balaa ñu laa laaj dara dinañ leen ne est-ce que am na ñu ko fekke ñu ko mën a seede bu nekkee ne euh, euh, lislaam dafa yem ci loolu euh, sunu loi yi teg ci leneen ñu ne da nga war a am firnde ne yegg nañ sa kaw maanaam ab këyit bu docteur bind buy wane na yow yegg nañ sa kaw donc bu ñu dajalee ñaari yooyu yëpp ñu gis ne aji saar amu ci benn maanaam certificat médical bi waroon a wax ne li muy wax dëgg la gis nga lu mu wax le contraire. Mm. ñi nga xamante ne nii waroon nañoo mën a ne Adji Sarr effectivement lu muy wax dëgg la parce que ñun ñoo nekkoon ak moom ca kër ga gis nañu ko muy yu nañu ko muy yuuxu gis nañu ko mu daw gis nañ ay yéreem xoteeku gis nañ gis nañ gis nañ bu boobaa gi nga ñun ñii nga xamante ne dañoo jàpp ne dañoo am par parparloo doon nañ bett yu bëri parce que ñun dañoo am ay sœur am ay euh, jigéen jurnu donc duñu nangu kenn koo xamante ne nii dina tooxal jigéen ci loo xamante ni du dëgg ak lu mu munti doon ñuy taxaw di ko nangu. mais c'est parce que soxna si li mu wax hmm, du début jusqu'à présent dafa lu si lépp lépp pratiquement amul lu ci yeenu maanaam. maam bi na lan mën a xaar ci confront après confrontation ci prochain jour ci dossier bi. ci évolution waaw léegi ñoom seen objectif. Uh-huh. li ma doon wax mooy maanaam mise en scène bi. parce que li taxoon ma bëggoon a commencer fee c'est pour dire que. Mm-hmm. dossier bi ci biir. yaa euh, a rien du tout c'est vide léegi ñoom bu ñu continuer di bëgg dem jusqu'au bu c'est parce que dafa am lu nekk seen ginnaaw mhm. xam nga loolu lan la mooy lan mooy maanaam ñu teg ñu ne procès dina am xam nañu ne dossier bi kenn mënu ci condamner Ousmane ko loolu mhm. xam nañ ko mais mën nañu Adji Sarr toog Ousmane Sonko toog mu naan ko yaa ma ñoppati woon fii. yaa ma gëjoon fii image Ousmane Sonko. très bien mu nekk ah. benn genre tam dëmm boo xamante ni ah. parce que. effectivement Sénégal duñ ko nangu. gis nañu ci procès wu xalifa Sall ay avocat ñëw di ko poser question yoo xamante ni seen intention c'était uniquement pour l'humilier pour teg ko loo xamante ni du dëgg bu nekkee nag ne ñoom dañoo loolu mooy seen intention maanaam toog. di euh, di yàq deru Sonko di joxe beneen image boo xamante ne nii bokkul ak image bi nga xamante ni moom bëgg noo nit ñi gis ko ci moom loolu saa pose problème. Mm-hmm. loolu ça pose problème xam nga man depuis le début nee naa le dossier là warul woon a mës a génn gendarmerie. Mm-hmm. parce que Adji Adji Sarr mii ñu gis nii. rien ne disait bu nekkoon dans un pays démocratique boo xamante ni amul mainmise ci justice bi amul dara rien ne dit que tey bu jógee këram. wuyu ji le doyen des juges dina génn këram ñibbiwaat rien ne le di hmm. mënoon na dem tey bureau doyen des wax fa la nga xamante ne nii mun nañ ko ci teg ay topp. Hmm. donc bu euh, doxalee nii def mise en scène bi mooy li ma wax ne loolu la ñu si jublu nekkatul ne. Hmm. pour topp Sonko daaneel ko ci li nga xamante ne dañuy jiiñ ne moom la ko la def mais tout simplement pour yàq deram te en quelque depuis le début. Mhm. quand Ousmane Sonko bu mu defee sa deuxième conférence de presse am benn message bu mu liiroon lu mu doon expliquer mooy ñii jëluñu intention pour juger ko xool fu dëgg féete li li ñu nar. mooy yàq deram. ñuy vilipande ko. Mhm. te loolu nag je pense que tey jii nii ma yegg si ci audio yooyu euh, nga doon tudd mu nekk loo xamante ni dafa dollekuwaat ci dossier bi di gën a confirmer li ñi ñi daan wax au début maanaam. dossier bi caaxaan la affaire de politique la. Mhm. loolu daf ko confirmer ba mu ko confirmer nag ba mu ko confirmer la sénégalais yi ak ñi ànd ak Ousmane Sonko waroon a am seen fulla ak seen fayda taxaw. jàpp ne affaire de caaxaan comme ñii ñëpp déggoon nañ ci ñoom ñu nangu. ñu leen di band barajee di leen di def lu nga xamante ni teguwul ci yoon. parce que dans tous mhm. fi ñu toll nii tey contrôle judiciaire bi ñu teg Ousmane Sonko ça fait presque mënuñu wax ne mën nañu mun nañu wax ne ça mmh. le porte préjudice carrément même moom su ko buggul nangu parce que en tant que responsable politique dama jàpp ne moom bu sañoon tey dina euh, mën a libre de ses mouvements mën a def euh, des de de des tournées un peu partout da au Sénégal mais également dans la diaspora génn dem bitim réew ak tey contrôle mmh. judiciaire bii nga xamante nii teg nañ ko ko da ko koy xañ ma bëgg a euh, euh, daanelee ci affaire Ousmane euh, Cheikh Oumar Diagne bi su muñu ko temps bi permettre hmm. juste pour dire que man dama jàpp ne ñoom imaam yi dañoo war a dindi seen ñetti seen ñetti kii yi ñetti futeeku waaw man léeg-léeg dinaa ko parce que li ci des hmm. gis nga xam nga xam nga mu toll nii xam fi mu toll nii hmm. Cheikh Oumar Diagne dañ ko jaay doole jaay doole bi fës leer nañ loolu bu bu nekkee jàpp nañu ko parce que man li may wax euh, dama koy wax te amul kenn ku ko mën a dindi. Mm-hmm. ku ñëw ci àdduna bi waxuma Sénégal dama jëlale Sénégal. Mm-hmm. ma ne diffamation. Mm-hmm. ñu yóbbu sa dossier en instruction. nañu ma wax fan la am ci adduna bi. benn dossier bu ndaw rek bu ñu ko génnee ne kii diffamation lañ ko jiiñ ñu yóbbu dossier bi en instruction dootuma toog ci télé bi di wax. d'accord alors Aliou Sow non pare non non man bi nag ci résume waaw je vais résumer c'est que uh-huh. dama toog lu yàgg waxuma bien sûr maa ngi doog a développé d'accord benn question rek laa jotoo a ci ci ah Mame Birame da ngay rébellé yow ah <laughs> Mame Birame waaw d'accord kon non rébellé ma c'est dafa am réew foo xamante ni dafa toll mm-hmm. mais dafa mel ne ñu bëri yëguñu ko mm-hmm. li xew démb ak tey ci capitaine Touré yaakaar naa ne sénégalais yu bëri yëg nañ ko mu nekk lenn loo xamante ni mu ngi daw ci réew mi te dama jàpp ne. conséquence su affaire Sonko aji Sarr ba léegi nit ñaa ngi ciy kii. nit ñaa ngi paye les pots cassés nit ñaa non dama jàpp ne Sénégal. Mhm. fi ñu toll nii dëkk bi li fi xew ay ñaani njëkk moo fi war a jeex est-ce lu ma bëgg a wax. Mhm. ay ñaani njëkk moo fi war a jeex Cheikh Oumar Diagne dañ ko jaay doole te man. nit doo ñëw jaay ko doole ba mu flagrant ba mu leer ma ne lii bu doon sax dafa am lu ñu ciy laam-laame mais wax naa la léegi ne monde bi suñu ma fi génnelee un dossier boo xamante ni diffamation la mu am instruction nañu ma ko wax loolu comme leer na ci bopp sénégalais yëpp que ne lii injustice la mais desul dal dul xeex ko parce que ñan njëkk yi ñu daan wax woote nañ marché de dinañ ko xeex de loolu loolu la lool la lool la waa Khalifa Sall yi daan wax mm-hmm. au départ nañu bàyyi justice def liggéeyam ba ñu ko jàppee ba jëkkoo condamné ñenn ñi ne dañuy médiation leneen ak leneen fan la ñuy mujjee Euh, def na appel ñu condamné ko mu defaat appel ñu condamné waat ko ba génne ko ci élection présidentielle deux mille dix neuf yi. donc tey jii nii bu nekkee ñoom dañoo amoon lenn loo xamante ni ñu ngi koy lamlaamee ci démarche gouvernement bi. Mm-hmm. nga mën a jàpp ne kat lii nii am na tuuti tuuti tuuti tuuti dëgg gu ci nekk sax ñu ne waaw mën nañu xëy na. ñaan njort mais yow mënuloo gis un dossier. Hmm. du début à la fin mu leer na ni lii yëpp tappale la. Hmm. ngay toog di di di di di di ñaan di di di ñaan kii. mën naa la et pour le cas de euh, du capitaine Touré mën naa la interpeller tuuti. Euh, boo paree ci ci ci ñaan njëkk hmm. ci capitaine Touré. ci capitaine Touré xam nga tout à l'heure dama ne barki euh, fan yi li xew ci dëkk bi ah li xew ci dëkk bi boo ban dëkk nga mën a jël ne aujourd'hui mooy l'exemple d'une dictature tey en Afrique ban dëkk la. boo munti boo munti jël ne mooy exemple de dictature en Afrique jàppal na Sénégal fi ñu toll nii ñu ngi fiy def lu ko raw. Hmm. parce que li gën a garaaw mooy dañuy mbubboo mbubbu démocratie. Hmm. ba pare di agir pire qu'une dictature. Hmm. te loolu bu xewee nekkul loo xamante ne nii dama jàpp ne lu luy doog a xew. parce que 31 euh, li xew euh, mois de mars 2021 mais dafa bett sénégalais yu bëri. dem nañu ba toog fii au Sénégal. bâtonnier wu Cameroun ñëw fi mhm. Cameroun bi nga xamante ni Paul Biya moo leen di jiite depuis quarante ans mhm. mu ñëw fi nañu yéen xàmmeetuma Sénégal mhm. parce que Sénégal gi nga xamante ni ay bañkat ñoo fi nekkoon depuis 2012 maa ngi gis ne ñu ngi leen di nopp te kenn ŋaawu donc 31 de euh, mois de mars bii li fi xew dañ ñu bëri dañoo jàpp ne c'est quelque chose boo xamante ni ce n'était pas prévu parce que sénégalais jàppoon nañu ne noot nañu leen a nootoo nootoo nootoo noot ba xalaatatu ñoo depuis depuis depuis euh, depuis boobu ah mars yooyu événement yooyu ba ñu ne Sénégal à un moment donné xaw na basculer. mais tey jii nii mais plus grave mooy xew. Hmm. parce que bu ñu kon continuer dossier bi di ko di ko gën a pousser di ko gën a pousser. Mhm. parallèlement ñuy jàpp ay ñoom Cheikh Oumar Diagne di tëj ci kaso bi. Mhm. parallèlement ku mel ne capitaine Touré ak liggéey bu mu liggéey parce que mhm. man nee na le dossier Adji Sarr warul woon a génn gendarmerie. te capitaine Touré suñ toppoon ci ay tànkam. man li ma wax nii loolu la naroon a def. fa la naroon yemale coow li. mais bien sûr parce que dem na ba xam ne mais lii ay caaxaan la. Euh, xam nga maa ngi wax Adji Sarr mais l'autre euh, Sidi Mouhamed Mbaye mhm. bi nga xamante ni la capitaine capitaine Touré auditionné na ko mais ci kooku rek mënoon nañoo yem ci moom pour wax ne dossier bi complo la parce que yow dama dama ko doon xaar pour ñu violer ko après mu yóbbu ko loolu fan la am. loolu amul fenn <laughs> donc complot bi foofu foofu la leeree woon ba nga bi ñu demee nag ba nga xamante ni leer na foofu te yemuñu ci ñuy continuer ay injustice di am fii à gauche et à droite la nit ñi nga xamante nii comme li ma doon wax Thierno Bocoum tout à l'heure opposition yi mun nañu am ku ci nekk ta propre idéologie ton propre programme mais am na loo xamante nii ñoom dañ ci war a déggoo te muy lan mooy